tay suñu woote bi danaka liko waral moy manam ñetti mbir la ñun danaka fi ci Excaf Telecom dañoo tit dañoo jommi dañoo jaxlé xam nga ku tit ku jommi jaxlé dox do xamante lay def liñu bolé ak suñu euh, gi bi du lenn lu manam kaddu yi nga xamanteni sa yu ko yëkkatee musul fexé be respecté kaddu yoyu depuis 2015 nous vivons cette situation waa Excaf dañoo teg nattu bi nga xamanteni def na yalla sax du ko teg euh, jaamam li ci gën a yées mooy maanaam dafa newoon yi daf ñuy fay suñu xaalis ndax daf ñu doon xaalis ñii ay fukki weer ñee dem nañ ba ñaari at 24 mois d'arriérés de salaire loolu defe naa Excaf kese la am léegi bu ñuy waaj a dem maanaam korité bi yëg na ni ñoo ngi def pression ci suuf ñu jóg ñu ne ñu non bu leen tiit bu leen ragal dinañ leen fay seen xaalis ba tey ba suba. furaas daal di xëdem feeyu ñu dara ñun nag dañoo sonn ci mbir mi moo tax na ñu fas yéene jóg nag xeex lu ñuy xeex du lenn lu dul suñu ak ak yelleef ndaxte ñu lu ñuy réclamer jamono ji tey jii ñaan ñu ko escaf de dañoo ñëw xam a faaytiñ daan suñu doole bi toll fu mu toll nii escaf yi doon ñu ñu xaalis nga ñëw dindi ci sa xaalis moom lenn lu mu lay tegal mooy maanaam ab ñàkk kersa bi nga xamante ne kenn xamul noo koy nattee nag ngay gisee kër bu toll ne escaf il y a dix ku doon ñëw fii escaf da ngay ñeewaa escaf waaye léegi xool leen Escale nu mu mel xool leen rek nu mu mel nga foog ne lii gestion bu rafet gestion bu am solo dina na tax kër gi dem noonu comme que demee na noonu ñun dafa ba bañuñ ci dara lu dul dara ndaxte fu mu toll nii daal suñu xaalis la ñu bëgg am nañ ci yaakaar ndaxte euh, système cryptage TNT bi nga xamante ne Excaf moo ko yoon nguur gi daal na ko nangu loxo Excaf dafa xam ne Excaf ay cuuni la ñu xamuñu dara moo tax mu nangu système cryptage bi yóbbu ko fi nga xamante ne mooy TDS

Li début de mobilisation la Amna ñeneen plan d'action yi nga xamantene nañ koy tek ci tali bi xam nga ñàkkante ak wa escape nañ dem yoon ndaxte yoon loolu lañu may may kat bo nekkee fi nga xamantene sa ak akila dañ ko jëlgati am nga ay droit yi nga xamantene mën nga dem justice ngir ñu na ko loolu dinañ ko def waaye ci wet wi tamit comme niñ koy waxee rek nous sommes victimes de la mode on va faire di gasta gasta wa escape il faut que ñu xamal leen ni ñi ëpp ñoo juddu ndax dañu suñu doole la ñu yore dañu ñëw fii di liggéey rek mais kon nit bu liggéeyee da nga ko war a fay xaalisam mais yow nit ki liggéeyal la du toll vingt quatre mois ngay doog a alléger bu lay wax sax nga koy jëppi di ko minimiser men ni yow kooku yaa yaa ko goñ judd ñun loolu la ñu mënatul supporter jeex na jeex na gas yi gas yi a abana waa Excaf dinañu fay par force ndax wala ñu jëflante ak ñoom loolu la ñu amal lu ñuy wax. ñun liggéeykat yu euh, DTV moo xam journaliste cadreur wala ki nga xamante moo di monteur.

non seulement tontuwul ci li nga xamanteni mom lañ ko laaj mooy ñu tok ci table de négociation waye li mu def nak moy di dankafu ñen ci collectif bi naan dama leen di dakk da ngeen di génn collectif baa ma dàq leen est-ce que tey yoon la nga nekk ci kër di liggéey nga am fay jafé jafé di sàkku ay lér ay ay leeraanga ci mbir mi ñu lay dakk je pense que loolu du deug du yoon ci noni nak lañu ñu euh, wax ak ki nga xamanteni ni di Bamba Kassé bu Synpics ngir wax situation bi nga xamanteni moom la jankontel mu xamu ñu ne li ngeen di kas seen droit la doxal leen Synpics mo ngi seen ginnaaw

en juin bii di a 24 mois sans salaire 24 mois sans salaire vous imaginez Euh, li ils ont tout fait pour pour saboter euh, tout ce qui est syndicat di ont nit ñi ci pet négocier ak ñii di bàyyi parce qu'à chaque fois on se disait que la maison gi am na ay difficultés nañ la ceinture muñ parce que gor moom soo est soo nekkee fu métti da ngay muñ soo leen muñ a ndoowee le résultat amee ñëpp bokk waaye apparemment li ma gis nii jëmul kër parce que le directeur ci boppam le directeur général mom, dafa nawloowul ay employé am te ay employé am seen doole lañ yor di ko di échanger ak seen salaire nit koo mun téye salaire am deux ans c'est parce que amoo benn estime ci mom, on a utilisé tous les canevas inspection du travail dem nañ fu nekk ba récemment ñu ne jot nañ jot nañ war nañ war na ja séddee TNT à l'état en l'occurrence ak kii TDS boobu ba léegi nee nañ war na jot quelque chose comme au minimum 7 à 8 milliards yo xamné moy première tranche bi boobu ba légui nak bon waxu ci il communique pas parce que je sais pas pourquoi il communique pas du tout té si ba légui ñun xamuñu ndax état que nako est viréel nako ko xamuñu ndax ko ba légui so dañ la on fait les états on fait les calculs alors que ñun ñu ngi ni ay de famille nek ay soutien de famille boobu ba légui ñu ngi daw seen ginaaw ba bëlee ñu ngi daw seen ginnaaw léegi nag Sénégal bu fekkee ne da ngay liggéey 12 12 mois 15 mois 24 mois de salaire sa directeur wala sa entreprise téye sa salaire du mujj fenn ñu xam ne bi amatul borom kenn moomu ko way la lixaa